léegi par juróomi group yi dañ leen di wutal benn surveillant nga xam ne moo leen di surveiller léegi suñ paree am benn surveillant général nga xamante ne nii mooy surveiller lépp nga xamante ne nii loolu xaaj nañ ko tubaab yi dañuy dogal ak pay léegi dañuy wax ni surveillant général juróomi dërëm lañ koy pointé par jour surveillant simple bi ñaari dërëm ak genn wàll lañ koy jox chef d'équipe bi ñaari dërëm ouvrier bi nga xamante ne ni pik ak peel la dërëm ak ñetti fifteen loolu lañ doon pointé par jour euh, di di fay nga gis ni loolu la ko tubaab bi defee ku ñu wax Modou Guèye assistant chef la jeunes yi la newoon taalibeb sëñ sàmba moom moo doon surveillant général bi moom itam dafay ñëwoon mission siyaar euh, ci sëñ ma Masamba sëñ ma Masamba wax ko ni ko day gën a yoonu saxaar googu Mouhamadou Moustapha di lijjanti am nga ci xam-xam a ah, bëgg nga jàppale ko ci moom itam mu taxaw ca taxawaay bu am solo wax nañu sax keroog bi muy fekki Cheikh Mouhamadou Moustapha Dakar pour ndigal li ñu ko jox daa fekk sëñ Modou am audience ak gouverneur euh, mu duggee en silence bi muy nuyu sëñ Modou dafa summi casque bi mu soloon summi bot raam nuyu sëñ saa ci kanamu gouverneur su jot ni muro murit yi def rek gouverneur wax Cheikh Mouhamadou Moussa ni ko gën na maa am ci yaw confiance ndax kii li mu def su ma ko def la woon mu lànk te gis naa ganaw yi ci dënnam ndax assistant chef la ak lii mu la defal bu ma ko def la woon mu lànk kon gën na maa am confiance ci yow euh, liggéey bi daal di démarrer sëñ moodu am convention ak Morel Porom mu doon société bu mag bu nekkoon ci réew mi doon comptoir commercial ngir mu koy fournir ceeb huile bu bawal nekkoon Jurbel di usine buy nal diwlin moom itam mu am ak moom convention ngir mu leen di fournir diwlin ku ñuy wax Modou Guèye Thion taalibe sëñ bi ci njaboot gi la bokk moom lañ doon dénk nag yi nga xam ni mooy lijjanti ndawal gi nga xamante ni mooy ànd ak seen ravitaillement nga xam ne bi ñu wootee ci gaar ba ngir waxtaane ak mbooloo mi liggéey bi ñuy bëgg sumb ak ni muy ni muy diiree ak mettiwaay gi eh, sëñ Moussa Fall moo jóg taxaw waxtuwaat bi na ko foo soxla ak weñ des na ko fa teg foo bëgg foo bëggee rek ak noo ko bëggee ne Cheikh Ibra Fall ni ko waaw góor Modou Moustapha Fall sama doom fu doomi sëñ Bàmba doonum Abdou Khadir Jeylaani na nga fa doon am tey foo euh, nga xam ni yitte ju kawe kawe euh, lañ am ci taxaw yoonu saxaar gi euh, tubaab yi itam ñëw nañ ñu ngi leen installé woon ci kër Ibrahima Thioye moo doon école régionale fi mu doon nii nekk Jurbel foofu ci dend ak résidence bi sëñ bi jëkkoon a nekk bi muy door a ñëw njaareem foofu lañ leen dalaloon liggéey bi démarré ci le 11 novembre 1928 le 11 novembre 1928 la liggéey bi démarré léggéey ba nag doonut woon liggéey bu yomb ndax am na foo xam ne bu ñu fa àggee dañuy gas am na foo xam ne bu fa àggee dañuy sëkk ndax yoonu saxaar point zéro lay déparé bokkut ak ab tëli nga xam ne mën naa dugg ci aw xur mën naa yéeg ciw tund saxaar nag demewut noonu yoonu saxaar point zéro lay déparé nga xam ne ci bi ñuy tàmbali foofu ci liggéey boobu sëñ Moussa ñëw na ak lenn ci kilifa yu bari ñu démarré liggéey bi nga xam ne Baye Fall yi dañuy dekkale lu bari ca kanam commencé gas mbooloo mi topp ci seen gannaaw suñ demee ba dab Baay Faal yi Baay Faal yi rocci jàllaat ci kanam waxoon nañ Cheikh laay Faal ci chef d'équipe bi la bokkoon xanaa njabootu Cheikh bi bari bokkoon nañ ci gas ba ay doomam la joxe woon nga xam ni gas bi rek quinze mois la fukki weer ak juróom lañ gas ba gas bi àgg Tuuba ñu door a retourné waat nag commencé liggéeyu technique bi di yu teg nga xam ne léeg-léeg ñu àgg ci aw xur woo xam dañ koy sëkk ngir yoon saxaar boo demee ci yoon saxaar gi sax boo ko seetloo da nga gis foo xam ne day mel dañ koo jàll ba mu tege ca kaw gis foo xamante ni ni dañ koy wàññi dafay mel ni daa jaar ci biir tund wi nga xam ne liggéey bi sëñ Basiiru doxee na njaareem ba Tuubaa ndax ànd ak liggéeykatu yoon saxaar gi rek fu ñu toll sampal ko ak barab bu ñu ko weesoo sempi barak ba samp ci kanam loolu lépp day wane rek yitte ji nga xamante ni ñoom am nañ ko ci liggéey bi ngir naalu Sëñ Tuubaa bi mën a taxaw euh, xam ne bi ñuy agsi kilomètre vingt euh, lañ wax ni benn guddi moo duggee accident chef surveillant bi moo soufflé mbooloo mu bari daal di ñëw ndax bu ñu soufflé rek dañ xam dañuy woote wax leen ni bu subaa bu ñu xëy dañuy am ay gan nañu defal ay ay mbaar booba mbaar yomb na parce que ngeer mi tabaarakallahu ci àll bi ñu defal ñaari maari ngeer yu mag a mag ndeke boobu tubaab yi li commencé Jurbel ba foofu nga xam ne ñu ngi ko doon pointé moom la ñuy fay te sëñ Moussa daal leen wax ne leen da ngeen ci góorgóorlu te am ci yitte ndax da ngeen ci am ak pay fii am ci ak pay fële fii ci wàllu àdduna mooy ñu ngi ko seqal fële mooy li nga xamante ne ni suñ borom tabaraka wa taala moo tax ñu di ko def ak sëriñ bi te pay googu ak guñ ca ñu xëyee lañ gis benn camion bu weex boo xam ne frigo la ñëw ndeke tubaab yi lañ lañ àndal ak ay gaali xalis la ñuy indaale bi dañu benn chauffeur bu ñuy wax di saw moo ko doon dawal bi ñëwee ci menn mbaar bi fi la tubaab yi ne mbooloo mi ci des def ku ñu équipe bu ñëw nee ci ron baar mi ñu fay buñ fayee ba mu jeex ñeneen ñeneen ñëwaat nga xam ne léeg-léeg sax nga dégg yenn ci bokk yi naan dañ leen daan def buñ leen fayee ñu denc ko buñ demaatee jox ko sëñ Moussa mu joxaat ko tubaab bi waaye naan source yi ma am bokkul ak loolu ndax gis naa ñu ca bokk ñoo xamante ne nii bokk nañ ci liggéeyu yoonu saxaar yi nee nañ lañ ca am dañ ko daan faje seeni soxla lu ñàkk nag xëy na ñu joxe ci addiya ndax taali bi moom faaw amee koom faaw mu joxe addiya waaye joxe lépp nag moom yàpp moo ni noonu la demee ndax mujj na sax sëñ Moussa wax tubaab bi ni ñu yokk lim bi ngir yàkkamti gum yàkkamti bi waaye tubaab bi ni ko moom mille cinq cent personnes yi doy na bokk na ci information yi am ku ñuy wax Fall Major moom xam ne bokkoon na ci ñu doon inscrit liste ba bokkoon na ci itam ci ñu doon taxaw liggéey bi euh, wax wax na lool ndax nee ma sax am na jamono boo xam daa mel ni wërsëgu Sénégal yëpp dañ ko xëcc indi ko ci yoonu saxaar gi nga xam ne ñu ci yoonu saxaar gi moom dañ leen di ñëw waaye ñëwatuñ kenn ndax bekkoor beeg jafe yi moom ñoom daanaka yëguñu ko ñu am xaalis ndax waaye liggéey bu metti la nag wax ne bi ñu agsi ci kilomètre vingt Cheikh Ibra ñëw na fa seet si liggéey ba wax nañ ni keroog bi muy ñëw benn oto la yor boo xam ne marque Vaccin la benn grand bu palmaan la sol yor laafa mbaxanam moo xamante ni laar bi mu ngi daanu ci gannaawam sëñ Modou Mbend Fall moo ko doon dawalal muy doomam mooy waajuru xalifa bi fi nekk di sëñ Amdi Modou Mbend nga xam moo toogee ca taayib Cheikh Ibra ànd nag euh, Cheikh Tall Galo nee na bi nga xamante ni nii jub na leen mbooloo mi seen ko ñuy nattable naan kër de Cheikh Ibra ñu ne ah waaw kër de Cheikh mais bi mu leen jubee daal di wàcc ak tànkam dox wut si leen mais bi mu ñëwee ne salaamaaleykum gars yi ñu ne waaleykum salaam mu nuyoo ñetti yoon daal ni ah gars yi gis ngeen ma ñu ni ko ah waaw Fall mun de gis nañ la mais mun nañ ko jox peel mu liggéey ñu jox ko peel peelu ku ñuy wax Jibril géey moom lañ ko jox. mu tibb ñetti peel ne ci sëkk la leen fekk bu metti foo xam ne dañuy war a bu suuf jal ca kaw ngir yoonu saxaar gi man cee jaar mais bi mu tibbee sànni ca tibb sànni ca ñetti yoon daal taxaw wax Seex Taal ni ko jox ma ne Seex Taal génne mbuusug pon gi mu yor génne gënn gi sox mu taal Seex Taal moo taal ay dégg sax ñu naan Seex bi da koo taal ci jant bi waaye noonu ki ma doon nettali waxuma loolu ni seex taal moo taal xëcc ba gënn gi jàpp xëcc benn yoon ba pon mi jàpp mu fomp solom bi jox Seex Ibra Seex Ibra xëcc ñett yoon sànni ca kaw daal di téen daal gis na pënd baa ngi jolli ba aras daal wax ni liggéey bi day ku ci yónni sa doom bu ñëwee di sa baay ku ci yónni sa taalibe bi bu ñëwee di sa sëriñ daal bu ngeen xamoon ku xamoon ci li ngeen ne dana bàyyi lam nekk ñëw ci li ngeen ne keroog xalaaj na leen ne ana yoonu Tuubaa tàmbali di ko tegtal mu ne leen bàyyi leen ko sax damay bëgg a kamaal xam naa ko mu ne keroog daaru xafoor la yendu ji bis boobee ba mu delsee ca wuy ji boroomam fekki cheikhul xadim radiallahu taala anhuma